màggal gi moo di ndigal lenn nu lu fi waxal boppam te daa ko digal murid yi koy gëmate màggal gi moo di ndigal ay waa ay Aïcha ba léegi ñu ngi fii si résidence Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ñëw fekkaat fi beneen kuréel boo xamante ne tamit si liggéey bi lañ bokk ñu fekk fi Cheikh Mbacké mu am lu mu yor ci euh, Moukhaddamatoul Khidma daara Moukhaddamatoul Khidma ñoom yor wàllu résidence bi ak euh, jumaa jeeg lépp ak yee yëpp ñoom ñoo ko yor ñu fas yéene waxtaana ma tuuti ci ay question incha allah rabbi mu am lu ñu leeral Cheikh Mbacké ziar nañ la waaw delloo siyaar baax yéen mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar di di leen dalal jàmm ci kër gi yéen a yor daara muxaddimatul xidma loolu muxaddimatul xidma lu mu signifie avant loolu. muxaddimatul xidma turu xasida la goo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko bind. muy xasida goo xam ne lépp ci julli ci yonante bi la ko Sëriñ Tuubaa def di Sëriñ Saaliwu mi nga xam ne dafa bëgg xasida itam ñor ko képp koo xam ne dalay jox turu kuréel rek. soo ko demee dalay jox tibb ci xasida yooyu jox la nga tudd ko ñun nag ñu am tawféexi sëñ bi bi mu ñu jox ndigal mu. jox ñu ndigalal ñu tudd mu muqaddimatul xidma muqaddimatul xidma mooy lu ñu jiital ci ab liggéey loolu mooy turu liggéey bi loolu nag suñ ci wax moo xam lu mu ci kii ndax turu xasida la suñ bi moo ko moo ñu ko dippee ñu jël ko muy suñ muy suñ turu daa kuréel waaw Muxaddamatul Xidma euh, ban cër la am ci Touba ba tax ñu jox ko organisation bu rëy bi ñu ko jox. waaw Muxaddamatul Xidma euh, ay ndaw lañ di di ay taalibe di mbokki Serigne Touba li ëpp ci mbooloo mi euh, di ñoo xam ne sëñ bi da leen a joxoon lu aji ci jumaa ji li jubbanti sàppe yi góor ñi di teqale góor ñi ak jigéen ñi di lijjanti mbir ko korite ak naafila yi lépp lu aji ci jumaa ji ci wàllu. luy tax jumaa ji yor xar kanamu jumaa muqaddimatul xidma taar boobu moom moo ko yor ba ñëpp rafetlu ko ci àdduna bépp rafetlu ko moo tax ba kuréel gu jóg rek di bëgg sa mbir rafet lu ci bëri bala ngaa am la la gënal dëgg nga jël muqaddimatul xidma dugal ko ci sab liggéey. yow ñu ñëw fekk la si résidence bi lan nga jiite si résidence bi. résidence bi benn mbokkum taalibe muy liggéey la moo xam ne dafa bokk ci muqaddimatul xidma. muqaddimatul khidma comme ni ma la ko waxee di kuréel gu jug di euh, liggéey ci jumaa ji seen liggéey bu rafet tax biñ créé comité d' organisation màggal Touba ñu jël leen yóbbu leen accueil hébergement muqaddimatul khidma nag euh, fépp fu am accueil hébergement am na fa ay membre yu ko fa teewal ñun nag dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo boole ci ñi nekk fii suñ jëwriñ di suñu abdoulahat bu sax xañ na fekk ngeen ko fi moo tax bi ngeen sàkkoy kàddu rek ñu wax ci ndigalam ak ci ndigalu sëñ maxtaar kan dama gis ni président Macky Sall fi la daloon dem na léegi lan ngeen di daa am gan yi ñëwaat fii wala dañuy pare résidence ñu tëj ko. waaw résidence bi kenn du ko tëj ñun li ñuy njëkk def mooy président Macky Sall ab taalibe la di gan goo xam ne dafa ganati woon sëriñ sëriñ Mountakha sëriñ Touba. bi mu delloo ñun lañuy def mooy nettoyé waat bërëb bi récupérer caabi yi euh, su ko defee jublu ci gan ñi nga xam ne gan yi kilifay diine yi lañ mooy tarixa yi nekk Sénégal. dañuy ñëw ñoom ñooy dal fii ak association islamique yi ak ambassadeurs yi ñoom fii la ñuy dal su ko defee ñun li ñuy def mooy jëm ko jekk-jekkalaat defaraat ko ba mu mel na mu war a mel ba dëppoog seen worma ji leen yàlla jox ñu defar bërëb ba mu nuroog ñoom bañ mën fay dal ci loolu lañ nekk su ko defee ñi fi war a dal mu ñun xam nañ ko ba pare ndax fi lañ baaxoo dal kenn ku ne fa nga daa nekk xam nañ ko na nga fi daa nekk xam nañ ko ci loolu lañ nekk di ko waajal ni loolu mooy liggéey mais dama gis ni euh, lu toll ni résidence Maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul président de la république di fi dal yeneen tarixa yi di fi dal ak ñi nga xamante association yi ak ñi xamat xamante ñoo jóge ci yeneen dëkk yi di ñëw di dal fii liggéey boobu noonu lañ ko dundee metti na walla daa oyof ci yéen euh, liggéey bi de woyof na ndax woyof gi li ko lal mooy ndigal euh, su suñ ci amutoon ndigal lay lay dis ci ñun waaye la fait ñu am ci ndigalal sëriñ Mountakha ak képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek loolu mooy tax mu woyof Euh, ci sa kanam la kii mooy ñoom fi ñu jeexale la ñeneen la ñu tàmbali nettoyé ñeneen jëlaat ñii suñ jeexalee suba ñeneen délégation day ñëwaat euh, moo tax yëf yi du nekkut délégation yi fekkante wuñ dañuy juyaloo moo tax nekkul lu diis gan loo xam ne dana sonal nit ñi. Euh, li ko li koy woyofal daal mooy saa dee bay am lu koy diisal rek soo xalaatee leen ci ndigal nga ko teg rek day dal di nekk lu neex ak mbégte loo xam ne dootoo am dara lu la ciy naqareeg lu la ci sama dernière question mooy bu màggal gi jeexee résidence dañ koy tëj wala dañuy bàyyi noonu ba léegi ku ñëw gane si sëñ bi dafa nga nga fi ñëw dal si waat. waaw bi kenn mënu koo tëj ndax. màggal gi dañ koy tëj nii continuer ku ñëw rek dal fi. déedéet du du bindoo noonu ndax sëñ bi sax waxtu wu ne fii xam nga soo ko dee xool dafa am forme hôtel kii statut hôtel la yor. maanaam nit waxtu wu ne sëñ bi day am xeeti nit ñu méngook barab bi di ñëw guddi ak bëccëg suba ngoom comme nañ ko daa def sëñ Tuubaa nga xam dëkk ba mu ne nit ñi walangaan màbbu jëm di wuy ji sëriñ Tuubaa loolee noone ba tey jii ku fi nekk suñ Tuubaa loola loola dalaa topp guddeeg bëccëg suba ngoon da ngay am gani ambassadeur di am gani président di am gan gan gu moo tax bërëb bii nii xaw a méngoog seen ni leen yàlla teralee bërëb bi teraanga ji fi ne méngoog ñoom moo tax waxtu wu ne dañ ko ubbi ngir ñooñu loolu bokk na ci bërëb bi li ko tax a jóg. sëñ Mbacke ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf ngeen jëf sant nañ bu baax ci leeral yi ngeen doon sàkku ci ñun ñu doon ci jéem li ñu man jërë ngeen mi ngi noonu Cheikh Mbacke lañ doon wax waxtaan ak nga xamante ñoom ñoo yor comité d'organisation bi lu jëm ci wàllu jumaa jeeg résidence bi yëpp ñoom ñoo ko yor ñu yor ko yor goo xamante ne yor gu am solo yor goo xamante ne xol bu sedd guy lañ ciy àndal ba léegi duñu bàyyi dara ñu ngi ñëwaat demaat feneen léegi incha allah rabbi pour jox leen leneen ci màggal gi incha allah ñu bàyyi ñu ne yéen fii ba euh, talaata ci ngoon incha allah ñuy doog a ñibbi Dakar bu soobee yàlla ok jërë ngeen jëf ah waaw waaw fii nag moom wa waxew ñu waxu fans <laughs> waxu taalibe waaw waaw ñun ñi nga xamante ne nañ dem abonné ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee nañ dem abonné El Vision Médias